engagement pour renforcer et consolider les acquis de la coalition Benno Bokoyakar. instruction bi à tous les militants mën Sénégal la position du parti c'est de renforcer et d'intégrer la coalition Benno Bokoyakar. les candidats de la coalition sont les candidats de l'AFP Comme nous dans le département sommes sol le département suba ngoon Goudi ak bëccëg pour une victoire large dans le département de Thiès loolu nak liguey la waye ku nek xamna amna ci conscience monsieur le ministre ñu ngi lay fédélé suñu coloré ci sa ouverture ak aussi ni ngay doxalé dajalé ñep boole len di wax ne la coalition Benno Bokk yakar war nañ ko jappalé bu baaxa baaxa baax autour du président Macky Sall notre objectif immédiat Moi, les législatives yaakaar naa nañ ci organiser commune par commune et je crois qu'il y a une stratégie boo xam ne amoon au niveau du département de Thiès qui est ne bu ko reconduire yaakaar naa dans chaque commune nous nit ñi fexe ba seen commune ñu gagné ko largement Nous ñu ko defee globalement nous allons nous en sortir. nañu xamal nit ñi ne surtout les yi. assemblée nationale du ay caaxaan réew du ay caaxaan de su ko foyee Sénégal nun àggagunu foo xam ne dañuy tudd ay cohabitation mënul nekk gisoon nañu la ko jege woon ci 1962 crise bi mu indiloon Sénégal crise boobu ñaanunu ko ci jamono yi ñu toll réew mi àttanu ko yàlla tere su amoon activité économique yi dana dana taxaw stabilité sociale dootu am ci réew mi réew mii dafay taxaw te balaa ngay bëgg parti bëggal sa réew d'abord sénégalais yépp li ñu war a wax ak ñoom xamal leen ko mooy président kenn du ko fal ba noppi ne ko dangay doxal waaye doo dogal li nga war a defal président ngir mu liggéey jox la résultat mooy da nga koy jàppale ba muy dogal di doxal te dogal doxal liy tax président man ko mooy mu am majorité à l'Assemblée nationale. am naa yaakaar ni daal comme ni DC wax euh, ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci euh, communes yi te nekkan commune rurale am na nu yaakaar ni seen i euh, escuré yëpp ñi ci ëpp ñun la ñuy wax. très bien waaw. Ah parce que li ñu def nag ñoom ba nu am kayitu juddu bu mën a déposé ñu xam nañ ko liñ ci ñàkk xam na ko. danu bañ dama bañam ba ku ci mel ni man sama oto la jël di ko yóbbu ci village yi ku si moo la indi équipe bi war a déplacé wu dama jënd photocopier six cent mille teg ko ci oto bi dëkk bu ñu dem ci dëkku kaw yi ñu photocopier doo dem ci tar la nga war na fay man maa ko fay la nga war na paas man maa ko fay la nga war na toog di ko di ko lekk sa kër maa la ko toggal añ mais loolu nag damay préparer élection yi ñëw parce que nag am na loo xam bu ko defal nit am na kersay wan la gannaaw kon monsieur le ministre na seen xel dal. ni xale yi nga xam ñoo déposé ñun ñëpp ñi ci ëpp ñun la ñuy wateel. mais soo bi xam na nañu fa nu jëm xam nañ ñu ni jàmmaar lool te bu ko yàlla dogalee nan leen defan ci ginnaaw nan leen di defar loolu rek laa ci wax wa salaam. Ça montre que l'Église d'Espagne, il nous reste 90 jours. 90 jours de nous. 90 jours de nous. 90 jours de nous. Ce n'est pas que nous de fait. Mais pourquoi il nous pas que enjeux mon cas, c'est des anges extrêmement Parce que c'est l'histoire du Sénégal. Pour la première fois, nous avons une élection particulière. Élection qui a été qui est une majorité pour nous gouverner Vous avez une majorité am avez un deuxième mandat pour la première fois dans l'histoire du Sénégal Nous avons à une élection où c'est-à-dire en 2024 Qui a fait un mandat de plus haut ni bii mandat c'est-à-dire nous avons am chance bu faire. La chance bi nous am président bu a eu un deuxième mandat am ko a ku ne mandat, may jël bu ko mandat donc je crois que damay rafetlu lii bëgg nag mu nekk lu sincère et ñu dundal ko beneen élément bi may wax mooy euh, ministre Alioune Sarr wax na ko léegi wax na ci wàllu communication sur les réseaux sociaux ñun waa Benno Bokk Yaakaar suñu problème communication c'est pas un problème de communication locale c'est que ñun ñi ànd ak président Macky Sall

nek maire fu waxe nga ni man dama gagné pourtant amna ki nga xamanteni ni ko mérite Thiès la deuk lam don jamarlo jamarlo ko mo la epp tout tout fortement apport te gañewul mais buñu sété li tax may rappeler lolu parce que nañu seet quand même photographie et puis euh, monsieur le ministre monsieur le président euh, Abdou ñi nga xamanteni ni ñëpp am nañu ku ci am chance wax ak président directement nañ ko ni le problème c'est pas les localités parce que réussissons réussir nous et pour nous parler, nous sanctionner par un communiqué mais problème bi ñu am nous avons leen ñi ci kaw di wax Nous président Macky Sall je crois que c'est problématique notre problème de de communication c'est pas un problème local ça on va le régler un problème au niveau local on a commencé comme ça à le régler mais li nga xamanteni mom demander moy li ci kaw ciow li ci kaw bi ci kaw bi en temps record damay un exemple en une semaine président Macky Sall def na fi réussir na fi Banjul ñew na fi le problème des des retraités régler fi le problème de qui? Nous mu les les les les là les titres fonciers mais régler na lu bari mais bala muy bala li muy servir sénégalais bala koy sénégalais yi lek kenn jóge feulé wax li nga xamante sénégalais yi dootuñu gisati moom li mu def ñun lañu jël diñ ci xarab je pense que tant que réglé wuñu lolu lenen li ça va être compliqué fi may attirer attention nit nak pour nit ñi xel dal parce que souvent c'est vrai. Faut ay jeunes inscrire lu bali c'est souvent fatal au parti au pouvoir ça il faut le dire Ça dit, dire jeunes yu bëri fu dem bindu ji 2000 mi ci mais nañ def ndànk faut dafa wuute jeune bi dem bindu ji demul bindu ji parce que vote bi moko taxé jox spécifiquement dafa dem bindou parce que bu binduwul bu ñu tëjee fii 2 deux mois buñ ko yónnee war yi du ko jot dafa dem Bindouji parce que bu amul carte d'identité xejna ce du meuna présenter pour meuna l'examen def examen cela veut dire quoi cela veut dire que nous ko djel sen inscription au génie. Nous avons ko djel mu nek luñu préoccupé parce que nous ñu ëpp luñuy voter voté mais dama wax ni bu ñu à ce point Nous dopé nak encouragé ñu et je crois que sociologiquement Abdou a donné des éléments qui m'ont permis de savoir que il y a aujourd'hui un travail à faire à l'endroit des jeunes. D'accord. Nous l'avons réussi à ah, plus de On doit se féliciter de ça. on peut catastrophiser la situation, hmm. quelles que soient les divergences, quelles que soient les sensibilités, les gens parviennent à se parler, à discuter, à créer une mouvance pour gagner. L'on a féliciter et dire qu'on mais pour ñu dramatiser la situation il y a leen lu leneen lii barul fu là vraiment attirer l'attention des des des des gens. Mais qui des Moi, la jeunesse effectivement la jeunesse inscrit massivement au niveau des listes. c'est un problème mais n'est na aussi avantage moi je expliqué loolu parce que euh, l'inscription sur les sur les listes électorales est liée à l'obtention de la carte d'identité Donc, lié fait le même le mais je pense que. Euh, warul mën a nekk le pouvoir tout dans mais cette fois-ci je pense que warul parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui ce que le président de la République a fait pour la jeunesse du Sénégal aucun autre président ne l'a fait secteur secteur par secteur ne que la semaine passée je pense que les jeunes le conseil régional le conseil régional de la jeunesse s'est réuni avec le conseil départemental pour des projets de jeunes dans chaque commune des fermes Comme boo dem tey am na ferme jeune jeunes du fa war a def au moins 30 à 50 employés C'est le ministre de la justice, le chef de cabinet est là, pour implanter au niveau du département. Bon, au niveau de l'enseignement, venons au niveau de la santé. Je suis le secteur de la santé, comme dans le président de la République. Je parle seulement des modalités. Il y a de cela 5 ans, ou bien 6 ans, pour avoir une je dans l'aider. Parce que à moi, il faut faire. Même si on a un million par mois, il doit avoir un centre de parce que non seulement on a un centre de modélisme, mais il n'y avait pas assez de techniciens. Aujourd'hui, le modélisme est gratuit. Parce que pour nous, pour faire une séance de modélisme, 80 000 euros fait. C'est donc qu'on est trois fois par semaine. Aujourd'hui, le président de la République, 80 millions de citoyens sénégalais, donc il y a quand même fait. Il y a quand la santé avant tout. Le dieu éducation, c'est la même chose. Le économie, c'est la même chose. Aujourd'hui, qu'est-ce que notation du Sénégal La note souveraine du Sénégal, est le domaine mu nekk ba P3 plus loolu aussi il faut ñu ko expliquer nit ñi monsieur monsieur le vice président parce que buñ ko nee yow yokk nañ ñoom Sénégal boo ko waxee sama genre yi dëgg njëriñ la duñ ci xam dara mais il faut ñu décor décortiquer leen wan na leen bu ñu yokkee ñoom Sénégal ça permet au pays d'emprunter plus et de payer moins boo doon leb taux boo xam ne 10 pour cent ngay fay bu napp bi élevé da ngay leb taux boo xam ne 3 pour cent ngay fay te dina permettre investisseurs yi yëpp parce que investisseurs bu ñëwee ñoom ñooy créer emploi donc loolu kon il faut ñu déggatu ko ba nit ñi mën koo comprendre. wax fa dëgg yàlla ñi fi nekkoon diiri ay at yi at yi at a ñoo nelaw lii dafay firndeel ci ñoom que ni mu yeewoo ñu jóg xam ne ñu ngi seen kaw yaakaar naa ni lii mën nañ ko woowee tey le conclave du rail pourquoi nag moo ba jël bëgg a jël kàddu ci wàllu ndaw ñi parce que da ngeen soulever léegi ay questions yu am solo. ngeen wax jeunesse bi nga xam ne tey ñoom ñëpp dañoo jug dem bindu ji li tax ñu bindu ji lan la jeunesse bi dafa bindu ji ndax président Macky Sall son excellence dafa ñëw nekk le plus jeune président de la république du Sénégal ñëw teg ay projet yoo xam ne exclusivement jeunesse bi daf ci am wàll bu am solo muy PAPEJ di PRODAC di ANPEJ yaakaar naa ni jeunesse bi gis ci seen bopp ba bëgg koo delloo bor bi moo tax ñu ne ñoom dañuy bindu ji fay ko delloo ko njukkal bu ñu delloo ci loolu jeunesse bi ñu ñëw doon woon président boo xam ne yor na atu seen i maam maam maam muy Abdoulaye Wade yàq dëkk bi jeunesse bi di chômer ku judd rek retraité bi ne ñun dañuy jóg ànd ak président boo xam ne ñoom moom ñoom maasay moom jamono ñoo tolloog moom jamono moo xam suñu mbébét xam suñuy bëgg-bëgg. muy le président boo xam ne yaakaar nañ ko ni bu faloo dinañ taxaw ñu jël seen i carte soo nekk Macky Sall son excellence le président de la mu gagné réew mi en 2012 delloo leen bi leen ay projets yoo xam ne gis nañ seen bopp wax fa dëgg yàlla jeunesse bi ñu baax la ñu ñu gore la am coloré moo tax ñu fas yéene koo jóg delloo ko ñu kër ci élection yi ñu jóg kon vive la jeunesse. may profité aussi di wax ci loolu jeunesse waa Thiès jeunesse waa Thiès dañoo am benn défi bu rëy défi bi am mooy dafay am benn waa ji fi nekkoon yor laa ma ñëw bu rëyu naan bu ko Thiès ba wee bu ba politique waa ji ñetti at a ngi nii xaw ma ñeenti at kenn gisu ko kenn déggu ko mu ñu dem élection référendum mu jub ne jeunesse bi nañ ànd ak moom pour ñu ne non jeunesse bi ne ko ñoo lànk wii la ñuy wote bañ wootee wii mu jaxle mu dem ànd ak ñeneen moroom yoo xam ne démb ay noonu lañ woon li olof naa ñooñu démb buñ nangoo tey seen i pexe jubul moo tax ñu dem jëli ñooñu bëgg a créer seen coalition man ko toroxal Sénégal jeunesse dañoo war a jug ne non duñ ko nangu duñ ko nangu duñ ko nangu tey duñ kon dañ leen jàpp ni ñooñu dañ leen te war a jëlee may profité di lancer appel ñu toog ci précision bii yëpp nag ndaje bi rafet na lool. mais dañoo bëgg à partir de la semaine prochaine kenn ku ci nekk nga yebal say ndaw ñu daje fii fas yéene dugg ci kër yi parce que dama doon dégg ci benn politicien bu mag bu ñuy wax monsieur Debré mu ne la politique c'est le terrain la politique c'est le terrain la politique c'est le terrain ñu wax ko ñetti yoon kon jeunesse bi ñoo am kattan dugg ci kër yi def ay porte à def ay proximité ci lycée yi def ay proximité ci marché yi kon jeunesse bi nañ jug te di ngeen di ngeen ànd yéen ñii si ñi jàppale ci loolu.